expérience jën bi naka la ko defaree daal balaa mu ko def balaa mu fiy def den nen bi jën bi de waaw waaw waa dinaa ci dellusiwaat ba pare lii bi tamit daf ko cuisine noonu ndax daf ko bread crumbs la noonu la ko defaree lan la noonooti bulet bi bulet bi bread crumbs suñ ko dañ oyofal rek dañ ko cuisine dañ ko steam rek daf ko steam rek dal di jël yóbbante ko diwlin gi neex na neex na waaye ma def ah. leen ba mu baax te dégg naa yaabooy ba daxati bu yaabooy bi. Ah. Mhm. <laughs> waaw Absa nga demal ma libi si jën bi. incha allah. ok bye. waaw di la bëggee bu ba sant bi ko moom. kontaan naa de. waaye ma ne def ba mu baax. ok ah, di la bëggee bu baax waaye ni ma leen ko waxee woon rek gis ngeen ko waaye dañ kii nga xam ne mooy Youssouf euh, Touré nekk fi ci jaatees mu ne mu ngi bëggee ki nga xam ne mooy tanta may yaa may fàttewu ci ki nga xam ne ni mooy Jula Kebe ak ki nga xam ne mooy Ndey ñoom ñëpp nekk foofu noonu ca Kolobaan ak ñi nekk fii ca London Corner di leen bëggee bu baax a baax a bakku bi yéen ko moom waaye kii damaa delluwaat ci lim mu wax dafa am solo li nga xam ne moom lañ njëkk a wol balaa ñoo def jën bi. laaj lañ wol laaj bu doy wol poobar wol kaani salaat wol kaani ja wol jaba jambu biñ wolee loolu rukka ko ci gën a gi bem nooy nem ñu soog a jël suñ jën bi nga xam ne nii woloon nañ ko ba pare dugal ko ci gën a gi wolaale ko moom gis ngeen ko fi mu nekk nii ak persi bi sax persi bi it mu ngi ci gis ngeen ne persi baa ci daf ko wolaalee persi bi yéen a koo gis fi mu nekk yi moo xooli nii mooy dem ci li moo wol si gis ngeen ne mu ngi xooli laajam bi bu xoolee laaj bi pare wol persem gis ngeen ne fi ka nekk mu di def nanka nanka gis ngeen ko mu ngey yakka jeen bi di ko ci dugal ci sigeer gi ci gënna bi su nak dal di jël nak gis ngeen ko yëfi la jël ni nanka nanka di jaxase gis ngeen ko de mu ngi koy wol nanka nanka bi moy sajja so dege ñu naan wol bi moy sajja olof ñu naan sajja dang koy sajja do ko wol wol bu dis boko ko mu tuuru dang koy sajja nanka nanka legi gis ngeen ne nen bi la fa def ni gisngen isajja nako mungi isajja gisngen mhm. ko mung ko isajja bem noy ko sajje bem noy na sokko jël nak yak gisngen ne fim neka mungi ni di xolle li nga xamne moy pompiterami mu neka toga bu am solo pompiter yi ngeen gis ni ñi xolli buñ ko xolle be pare nak di ngeen gis ne buñ ci pare li ñong bi gis ngeen ne ñu ko xolli yep daf ci dem gis ngeen ne bi buñ ko xolle be pare tege ko bor gis ngeen ne yi ñoy dem ci sauce bi biñ ci jógee nag fi mu nekk ni gis ngeen liñoŋ yi ba tey ñu ngi xool li ne dafa war a doy liñoŋ dafa war a doy ci togga waaye ñaari liñoŋ benn liñoŋ du togga nee la ñuy def liñoŋ gu doy daf ci safal togga benn cin rek laa xam ne boo xamee amee benn xaaf liñoŋ sa mun naa togga ceeb waaye yenn togga yi foog mu saf liñoŋ ceeb nag moom xaaf xaaf doomi liñoŋ sa doy na ci muy benn cin waaye lii dafa dafa dafa dafa saf soxla liñoŋ ndax liñoŋ ngay tax ñu ne tooga gi gis ngeen ne bi nga xamee ne nag wol na yëpp ba pare moom ngeen gis fi mu nekk nii nag mu ngi koy jaxase nanka-nanka mu ngi sotti nag li nga xam ne mooy diwlinam mu ko ciy sotti su paree nag dal di jël indeem laal ci diwlin gi laal ci inde bi pour li nga xam ne nii moom laa defar ci muy mundo bulet yi gis ngeen ko fi mu nekk nii moom ngeen gis nii fi mu nekk nii mu ngi ko riib gis ngeen ne mu ngi def mundo bu am solo bum nekk mondo bu oyof bum nekk mondo bu oyof na nekk mondo bu dis bum nekk mondo jaañeen o mondo eh, ñangeen o mondo fale, na nekk mondo jangeen bu dis la nekk bo xamne ni bo ci dugale nen bi ding ko antal gis ngeen ko fim nekk ngeen gis ni mu ko def bol su mak nga xamne bo ci paree boko ko dogen bi dina rafet motax ñuy wax waaye nekkul mondo bu ndaw bu mondo bu ndaw dogen ba du rafet ne la def yu dijja gis nga ne bi mu nekk nii mundo bi mu def nii su paree defar na ko ba mu rafet mu dal di teg ci indéem dal di defaraat beneen dugal ci nen dal di teg ci indéem waaye na mundo yi gis ngeen ko mu ngee defar mu ngi koo mu koo tabax defar ko ba mu baax ko tabaxee ba pare gis ngeen ne fi mu nekk yëf yëpp ànd na maa su paree nag dal di jël nag fekk furnoom baax na sugeeram baax na mu dal di ko jël nag fi mu nekk nii teg ko ci sigeeram dal di jël tayeekaayam tay bu teyee ba pare ut leen nag lu diis loo xam ne di ngeen ko mun a kubéer mu ne rab suñ ko si tejee rab nga xam ne ni du lii fi mu nekk nii nag li ngeen gis ni moo ngeen ñëw pour fry li nga xam ne mooy chips bi waaye gis ngeen ne mu ngi cee sotti vinaigre bi te fekk defoon na ci xorom tuur na ndox moomu noonu fi mu nekk nii léegi mu ngee ñëw seet ndax far seem bi lim ci nom ma am na ko ceem déet su ko ci amutee mu ne ko kërëb képp dal di ko dipaat mu ngi gis fi nekk nii léegi chips bi nag ngeen gis ni mu ngi ciy laal foriñ foriñ gi soo leen gisee ma wax leen ko képp koo xam ne nomati na chips boo xam ne boo ko yee mu naan kacc kacc sa gémmiñ gi moo tax ñu naan chips lii moo tax dañ ciy laal foriñ def nañ ci vinaigre bi gis ngeen ko buñ ko fraayee ni moo mel gis ngeen ko moom ngeen gis ni gis ngeen ne fi mu nekk nii ñu ngee fraay su fi nekkoon suba ba ngoon joti du lax pompiteer bi ni mel nii rek lay mer rafet ba bugg a du am dara lu ko yàqa gis ngeen ko buñ ko seppee ci diwlin bi kola bi mu la jox gis ngeen ko moom du lax du bàyyandeku fi mu nekk moom ngeen gis nii fi mu nekk mu ngi ko yekka bu ko yekkee ci sigeer bi ba pare gis ngeen ko moom ngeen gis ni fi mu nekk ni mu ngi yekka li nga xam ne mooy chips bi moom ngeen gis ni fi mu nekk ni mu nekk lu am solo war naa leen gis ngeen ne fi mu nekk nii nag farce bi ñaxa na ñaxa gi maa wax mooy ñaxa na ba génnee diw gi nga xam ne moom lañ koo defaree woon fi mu nekk ni li ñoo jël rek mooy du tas du def dara ndax muus na ba ndox mi yëpp siit nga dal di jël na def sa diwlin waaye ngela bu diwlin bi saas bi ëppa am na num saasee bi ëppa li nga ci bugg a doo ko am fi mu nekk nag mu ngi wol si li nga xam ne moom laa def si si li ñoo ngam muy kaani salade bi ak poobar bi fi mu nekk moom ngeen gis nii ak kaani bu mookaam bi moom ngeen gis ni fi mu nekk ni mu di ko si def si si ngeen ne moom laa rukka ni moom itam ci gën a gi gis ngeen ko fi mu nekk ni mu ngi koo tuj tujal ci gën gi yëf yëpp bu ko walee ba yëf yëpp àndaloo fi mu nekk mu ngi fry gis ngeen ne ñeme na diwlin gi diwlin gi saasut ba uppa ndax liñ ci bugg a mooy ne di nga fry yëf yi mu egga bi ci xoli jën bi fa ko nomee nga xam ne nii boo paree jën bi dafay ñor ci kaw bi ci suuf nekkul ne rek ñori biti laa nekka ndax am na nu diwlin bi tàngee ñori biti laa nekka dafa ñoree ci kaw ci biir fekk ñorut waaye niñ ko defee nii steam nañ ko bi nga xam ne ndox ma ca nekkoon yëpp see jeex na takk gis ngeen ne fi mu nekk mu ngi cee sotti vinaigre bi lii mooy dem ci ci duulinam bi mu ngi def muttaadam bi bii mooy soos bi gis ngeen ko waaw gis ngeen ko su nag gis ngeen ko mu ngi jàllal bi mu ngi jàllal bi li ñoo ngeeg yim ci wol yëpp ba pare fi mu nekk ñu ngi delluwaat ci farce bi gis ngeen ne fry bi liñ ci noma yëpp dinañ ko ci am gis nga ñu ngi wëlbati walla gis nga kola bi ni mel rafet na te jaar na yoon gis ngeen ko waawaaw waaw gis nga bu nekkoon mondo bu sew bu nekkoon mondo bu sew li ngeen ci bugga yëpp doo leen ko ci am na dafay delluwaat na jën bi xam nga ndox a ko amee woon te ndox mi yëpp siit na loolu yëpp dafaa delluwaat gis ngeen ko ay gis ngeen ko de léegi ñu ngi def diwlin jën am soos bi dal di ko jël jaarar bi ko mu ngi koy jaarar bi di ko jaarar bi waat jàllar bi jàllar bi waat jàllar bi jàllar bi waat rek yëf yi bare mu dal di yàqateel di teg gis ngeen ko mu ngay jël di jàllar bi diwlin gi du bari lii soos bi du bari diw ndànka rek tuuti rek gis ngeen ko mu ngay jàllar bi di jàllar bi waat yëf yëpp pare na table baa nga ne ba fa kala macha allah yi ci waroon na dem yëpp am na moo tax di wax ne ekkati leen seen téléphone call ci oh oh su ko defee rek ñu dal di jàkkaarloo dal di waxtaan rek ci bi ni ma ko defee rek bakku bi yéene ko moom te ñun suñ fi toogee rek saa su nekk dañoo askan bi ni ñoo bëggeelee askan bi mooy rek wan li nga ne ni moom ngeen gën a te it yii dafa bokk ci tooga bi lii ni bokkee ci tooga gi mooy ni nga ne ni ñu ne yàppaa li nga xam ne moom lañ tooga tey muy farsi bi farsi bi mu nekk lu am solo tooga bi nekk lu am solo mu nekk loo xam ne nii nit ñi yëpp dinañ ko dee bëgg a xam naka lañ koo defaree waaye kii nga xam ne mooy Coro Sala won na leen tey li nga xam ne farsi bi noonu lañ koo toogee te mu nekk tooga gu am mu am solo nee la ñuy def rek Bemba ndogu yi yii moo ci gën a am solo ñu def yoo xam ne ni dafay saf ci gémmiñ ndax boo ooree suba bi ngoon jot boo dogee war ngaa dogee lu am solo mooy lu neex ci gémmiñ nga xam ne boo paree sa gémmiñ yi li nga lim na moon yëpp dina dina delluwaat place am moo tax ma ne ne la ñuy def rek bem baa xëy na su nekkee ne am na ku nekk ci laam bi ñu dal di ko jël o su ko su nekkutee amul kenn ku nekk ci laam ñu dal di continuer rek waxtaan bi dal di def rek baax ni ñoo defee bem baax dafa am solo waañ bi dafa nekk loo xam ne dafa am solo moo tax saa su nekk suñ fi toogee foo rek ñuy def rek bem baax moo tax nag tey coro lim ñu indi dafa am solo lii nga xam ne mooy farsi tooga bu am solo la mooy tooga bi nga xam ne tubaab fakala macha allah nit ñi dañ ko dee bugg a xam naka lañ koo tooge waaye wan nañu tey li nga xam ne noonu lañ koo tooge mu nekk lu am solo ma dal di ko kooku ci laan bi naan ko allo asalaamaaleykum. maam Dieng. naam. maam Dieng mbaa yow or nga yee. <laughs> waaw lu tax. Ah, ah. ah waaye nag gis ngeen. man ku ma xam-xam ne dëgg dëgg man or du may du may lifin. parce que li nga waxee